waaye fii la paiement am sa ah ñëw ci selfish euh, tour bi rek. Hmm. di di am contentement bu rëy la fait que ñu joué ci banlieue bi xam nga gars yi ñu comme comme des superstars et ça m'a carrément fait plaisir hmm. waaw. Hmm. bon dans chaque dans ñoo ànd. dans chaque musique ñoo ànd tey ji boo tegul <laughs> boo tegul son doo ci donc loolu la. Chris Brown la lay def Michael Jackson la lay def Beyoncé la lay def Fally Ipupa la lay def dañuy fecc en même temps di di di way donc tout est possible ci biir aar la ba léegi donc pour man c'est pas un problème ma def ko et fil naa ko bu baax. Euh, ok récemment nii mhm. Fatal ma foofu. Mhm. te pourquoi Fatal ma foofu. pourquoi Fatal ma ah, benn langue la rek boo xamante ne que tout le monde en parle tu vois euh, ñu jël ko valoriser ko rek. tu vois parce que c'est de tendance tendance la et sant yàlla nit yi bëgg nañ ko man ci sant yàlla bu baax te xeeb naa ko xeeb naa ko trop lu ma def xeeb naa ko trop c'est pas pour man c'est pas un petit truc mais yàlla suturaal na ma de telle sorte nit yi bëgg nañ ko xale yi ndaw yi maire yi maa ngi gis lépp te aw ma seen fay je gis naa ke mais ful bi yëpp jugandoo quoi di ko wayandoo. ful bi yëpp jugandoo di ko wayandoo damay sant yàlla di wax. di wax sant damay santaat yàlla bu baax parce que lu ma doon rêvé la lu ma doon la mu yàgg nekk si man rêvé def dara truc ñëpp bëgg ko ngir kii bëgg yombul de bëgg nit yombul donc nit ki bu la bëggee wala mu bëggal la sa lépp da nga koy delloo. ok lan la ñuy fàtt foofu. lan la ñuy fàtt foofu ñuy fàtt bëri na yow benn tur bu <laughs> waaw t'as capté benn tur bu génne yow doo ko benn tur bu génne. mais si son bi son bi ban genre fat je parle de voiture en régime bi yokk fatal ma foofu waaw. inspiration ba inspiration bi comme gis nga fi ma toogee nii ak gars yi nii ni ma toogee ak sama copain bi nekk si ginnaaw ak yeneen gaay ni ma teg beat bi tu ak sama kóol commencé le vibe commencé ñëw tu mais esprit fatal ma foofu moom mosoon nekk sama xel. esprit bi moom mosoon nekk sama xel parce que y a un gars bu nekk kaaw buy buy wax eh fatal ma foofu daa capté ou pas mais man dama dindi saaga bi parce que je me suis dit que son bi dem la et voilà ça soo xoolee yaa ngi si danse bi est ne peut-être ça n'a rien à est pas c' est pas c' est fatal ma foofu ngeen njëkk dégg mais avant fatal ma foofu am na beneen son bu tudd touche du bois. tu donc moom moo njëkk génn fatal ma foofu fatal ma foofu moom moo gën am boo gën am doole tu vois donc euh, des na yeneen yu bëri lu bii la war a def incha allah. voilà sànq maa ngi dégg ni ñu ne yàgg da ngeen am problème. mosuma am problème ak Doudou. Hmm. Hmm. gars ñooy wax rek man nag je suis pas dama koy teel a wax gars yi quoi pour ñu teel ko def seen bopp. je suis pas un mec détail du ma góor bu détail nekkuma góor bu bëri wax je parle pas trop hmm. je en plus. voilà mais bon soo xoolee si look bi yaa mhm. parce que style la lii mooy sama style tu vois bu nekk boo taxee nga xool kee di ñëw da nga xam ne kay Wally Seck la dama bëgg biilu bi ñëw nga xam ne kii kii biilu la donc loolu. kese la waaw nee na. nit ñi wax ne yéen da ngeen di yàq aar ah, ah, xaw ma si dara de en tout cas je fais mon truc je suis ah. keneen li nit di wax nag ah déggu ma ko de man ce qui m'intéresse c'est mon boulot point. kese dégguma keneen ak keneen ak keneen ah. sama liggéey ah. la xam waaw bon merci beaucoup et merci si sa petit kii bi xam naa yow moom bu ñu amoon benn une de temps di ma dugal di ma jaxase ak réew mi mais du ma ko nangu. <laughs> ok ñu <laughs> plaisir kontaan naa bu baax jaajëf maam merci beaucoup.